koy may mu Ousseyn Mbaye moo damay wax rek jox Ousseyn Kayta waaw tey fii daa war a toj Pawlish dalaa nax ndax ñaari seex laa am kenn ki Kayta laa koy tuddee nga ñëw def jëfu noble waaw nga ñëw def jëfu vainqueur waa dëgg du neex Ousseyn Mbaye gis nga biisu biisu boo nee ko ku la gën a lakkal ci àdduna mën a la Ousmane Mbaye ba may dalal bongo xewul déglul tuuti Ousmane kay ta mu wax nga dem moo tax ma ne ko kaata fayul kaata fayul ku la yéen mbir ngeen ko kuur dem xooli ak ki nga xamante ne moom moo di euh, sunu euh, yaay booy bi nga xamante ne moom la jàkkaar lool moom tamit mu daal di si sànni ay kàddu yaay booy ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. ñu ngi xam tur la ak lan nga bokk ak ki nga xamante ne mooy borom bi di Pawlish Mbaye. waaw man Asoutal laa tudd Pawlish di sama doom. yaayu Pawlish di sama mag di sama xarit di sama mag Oumy Mbaye mii ñoo nekk xal bi ñuy xale lañ doon ànd ba nekk mag yaayu Pawlish bi mooy Aïda Mbaye moo ñu yar baax na bëgg nañu ñun kër googu lañ fowee ñoom ñoo suñu lépp Ablaye Mbaye ñoo ko yar man su ma du ma du ma du ma bëgg di wax sax Ablaye Pawlish ndax mënuma pa wax ab Ablaye mbay laa xam muy xale bu baax nag xale bu am cër li yaayam wax rek nit ku nekk li sa destin moom la la yàlla di jox xëy na ni mel nii ñun kontaan nañ ci ndax moo gën bu doon tey ji bu doon tux wala muy naan wala muy def lu bon kon ñun du ñu am succès kon bu ñu mën a toog fii ni toog tey waaye dañ koy sant di ko gërëm Ablaye Mbaye dañuy ñaan seexam yi yàlla nañ toog ba ñun ñi ñuy lekk ci teraangay ay seexam yi di gërëm tam jabaram maam jaara bu baax a baax a baax xale bu baax la xale bu baax la macha allah muñal na Pawlish bëgg na Pawlish bëgg na ay mbokk Pawlish ñi ngi ñaan daal bis bii yàlla na ci yàlla defaat ay doomi doomi doomi doom ba ñëpp am ci ay turandoo jaay Seydina Mouhamed comme ni ko waxee sànq moom la xool si liggéey bu rafet moo tax tey ngeen toog fii àdduna euh, yëpp tamit gis ko ñoo ko si nit bu yëngu ci wàllu milieu showbiz léeg-léeg dina am ay kàddu ñaaw ñu koy wax yéen ñi nga xamante ne ay mbokkam léeg boo leen dégg saa kàddu yi an nan leen def man bu ma déggee kuy wax Pawlish bu bon sax damay reetaan ndax man xam naa ne Pawlish melu noonu Ablaye Mbaye dundul lu bon xëy na comédie kaf reetaan moom loolu la xam te loolu bi muy nekk xale ba léegi dafa nekk ci moom moo tax nii mu mel ñun bett ñun man bu ma déggee nit ku wax Ablaye Mbaye lu bon du ma ci sax commentaire ndax dama naan kii xamul ki muy waxal Ablaye Mbaye ni mu mel ne am na fulla am na fayda am na sutura tey nekk na xale bu baax boo xamante ne ku xam fu muy teg tànkam la ndax ñun ñi Ablaye Mbaye bu meloon ne neneen ñun duñ fi ñëw toog yaayam ji noonu umu mbaay mii di raqu yaayam tam noonu ñun Pawlish dañ koy ñaanal gudd fan ñi ko xamul rek ñoo koy critiquer mais ku ko xam doo ko critiqué Pawlish ku ko xam rek doo wax ci moom dara lu ñaaw ndax macha allah nit ku baax la nit ku xam ku bëgg waajur ku bëgg Aïda Mbaye ku sagal Aïda Mbaye ku taral Aïda Mbaye ñun Pawlish ñun xam nañ ci moom loolu ndax Aïda Mbaye nag moo ñu yar Aïda Mbaye mi yaayu Pawlish ñun moo ñu yar depuis xale ñu xam lépp nag yaroo ci biir kër googu nekkatuñu géer ak géwél ñun suñu digganteeg Ablaye Mbaye ak euh, Oumy Mbaye ak Aïda Mbaye nekkatul géer ak géwél ñun dañuy ñaan rek yàlla may ko gudd fan ak wér nit daal boo ko xamul doo ko gisé Ablaye Mbaye ku ko xam di nga ko téye ku ko juróom itam di nga ko téye xale bu baax la xale bu xam fu muy teg tànkam la macha allah. waaw di ko ñaanal rek seex yi bisu Ngone ak Mouhamed ñuy ñaan yàlla may leen gudd fan ak wér bay yóbbu yaayam màkk ak maamam ji ba ñun ñëpp ñu xacc ci bi jaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ Pawlish ku ñemee ku kii la ku ñemee ku ñemee kër la ba pare dama ko ndax dama xam Pawlish ma ku ma xamul waaye du Pawlish mi kon ma koy ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan ah, koy romb noonu biisu yaay romb waaw waaye kii moom xam na sama lépp la kii sama lépp la moom ñoom ñaar ñi ko ndawtal ci ay loolu kenn wa ndaw la ñu ñu kan na projet gi xew bi ñu seen xew la ay ta maa ngi ñu ñu cheikh bés bi lam ci at ay tay mooy sama lépp sama àdduna tey suma deewoon sama àdduna ay ta ma di leen wax ne mi ngi wax lum ragal. <laughs> idée. non bu dul loolu sax nit bu la suñu borom bi defee sa xool ci Sénégal mais di leen xamal ni fii bu teew rek gars yi kontaan nañ ci ndax muy Cheikh Mbacke di man fu mu toll ñoo war a dalal ganu police yi di leen gunge di leen gàttandu di leen dugal di leen génne ndax nit moom ni mu toll ci yow rek ngay toll ci moom li Cheikh wax dëgg la naaj bi daa tàng gisoo man Fataala maa ngi nii di sit dañoo taxaw ci naaj bi di ko jéem risqué mais presse la presse aussi kenn amu ci yéen seen wàll na leen yàlla